doore ko nag ci malade yi tëdd ci hôpitaux yeeg ñëw yàlla seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seeni i bakkaar kilifa dina yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar leen ñaanal jàmm kilifa aada itam naka noonu yàlla yàlla yokk jàmm ci ñoom yàlla gën a tàppe xol yi ñu nekk benn li nga xamante ni moom la ñu romb ku ne yaakaaroon ni mën naa metti waaye Sénégal nag ku ne xam na ni incha allahu taala yàlla dafa wis ndox mu sedd yàlla na ko yàlla saxal wis ko ci bépp ëtt kër boo xamante ni rek doomu aadama nga fa toog jàkkaarlook man di ma seetaan ci sa ngeen gi télé di la 2STV ma di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm askanu Sénégal yëpp. wala sax ñi nga xamante ni ñoo ñuy euh, déglu via 88 point 4 seen rajo origine FM ñoom tam ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ñeneen ñi duñu ko euh, ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook la moo xam Twitter la wala sax euh, ci TikTok bi léeg-léeg ñu dagg dara daal di koy dugal ci biir tabarkalla macha allah sama invité xanaa du 2S bala maa yeggale nuyoo bi. ma matale tamit. waaw kay mu ngi noonu kon nag euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi toog di ñu seetaan ci biir réew mi bitim réew itam ñu di leen jox cër bu baax a baax euh, di leen ñaanal jàmm di ñaan itam li leen tax a génn rëccu teef bañ cee am waaye ànd ak lu mën a xew li nga xamante ni moo leen daqal neex-neex fi mu nekk nii mooy ñibbi gi seenu njaboot yàlla na sunu borom defal leen ko tey nag bu ngeen ma gisee tey dama ànd ak njambax ndax ki ma invité dama ko doon wër ñaari weeri yàllaa ngi nii ba yàlla dogal tey tey rek lay ñu fas yéene dem ci biir kër gi waxtaane nag mbóot yi ci biir kër gi liy metti ci biir kër gi liy jafe ci biir kër gi waaye lépp loo xamante ni xeetu naqar la itam nit di ko dund ci biir kër gi sañ nañ nag ne ko becc ci taabal ji ndax taabal ji ku ne xam na ni 2007 ba léegi ñu ngi naan becc ay cas te saa su ne rek cas bu ñu indi rek tabarkàlla macha allah ñëpp apprécié kon kër gi la ñu wax. ci 88 nag 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen wala 00 221 33 841 23 34 ñuy xaar Thiamas retard na encore waaye xaw ma dafa daw parce que foog mu dajeeg Mbodja kon Mbodja maa ngi lay nuyu la ziar di la bàyyi nga nuyoog say fans. maa ngi delloo bu baax di nuy waa Tëngéej gi nga jógee tamit. jërëjëf la wax ne yàlla koy soo ko dogal nag. mais mhm. wax dëgg yàlla temps yii yëpp taw bee ñu xawoon a ku nekk xam ne ni mu mel Dakar. tamit ndox mi euh, soxna Mbaye ñu leen di masawu mhm. ba am na sax deux minutes yu génn àdduna dëgg la ñu ngi leen di masawu ñoom ñëpp ñaan mhm. yàlla mu yërëm leen amiin amiin waa Kër Massar yëpp di leen nuyu bu baax di leen ziar di mhm. ñaanal jàmm nuyu sama waa kër tamit rawatina sama borom kër Thiamas ndeysaan maa ngi di nuyu sama ñoom yaay ah, booy sa borom kër Thiamas waaw moo tax ñu bari yoo foogoon ne Thiamas mi sama doom bay comme ñu yaakaar ne Thiamas a <laughs> mi ngi noonu. ndeysaan di nuyu waa Kër du nuyu sama yaay booy tam même nga baal di mm-hmm. tey la tey moom it ngi mm-hmm. ko nuyu Soxna Mbaye du kontaan loolu la bi. yëg nga ni deuxième ngay daw. ba xam nga ni loo ma wër naa laa wër fukk. sa diggante ak yàlla tey kon wërante la. la ba léegi maa ngi lay wër. coow li coow li ba léegi. <laughs> est-ce que xam te doo ci mucc. fexe ay fexe mucc. kaa baa ngi <laughs> loolu laa la yàgg a wëree ndax da nga ko doon defee daa neex ànd ak temps ñëpp bëgg nga invité xam nga dama am fit <laughs> li ma saf bariwul mag yow yem moo tax ma bëgg a jël lenge yi balancé la ko. kon jeex na ñu xam ni coow li coow leen. kon neex na ba pare tabaarkalla macha allah. te it nag euh, Mbodja. balaa sama beneen invité bi di ñëw. dafa ah. ñëw ci question da nga ñëw ci question bu am solo nga ne Thiamas. Ah. sama boroom kër. Ah. ñu bari dañ ciy poser la question à savoir. ndax Mbodja. ak ni muy wax ak ni muy waxee ndax Mbodja am na borom kër. <laughs> ndekete boobu Mbodja am na borom kër. wallaay des fois ñu ne. bon kii xam naa ko daa sëy ba tas mbay man musuma musuma tas. maa ngi bu baax nag. macha allah macha allah man 16 ans ba léegi maa ngi. 16 ans ba léegi yaa ngi ci loxoy caamaas waaw lu nekk ci loxoy caamaas. ah ëpp na. mag du nuur fu dara newul de <laughs> tey kër gi la on sa suñu yoon mag du nuur fu dara newul lu nekk ci loxoy caamaas xamal ni la tax mu tax. moo tax a ta moo tax mu tax ba xam nga ne mbooja loxoy ngeen teewu ko. waaw waaw <laughs> waaw ma sa gi mu tàng suukar saata. suukar saata dëgg <laughs> 88 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen incha allahu taala gis ngeen ko Mbodja Mbaye moom la ñu àndal tey ci émission bi mais tam beneen question itam mbo nee nañ bu demee ba ca biir day tàng. waaw bi nii moom moom moom calme nga mais lan moo waral Mbodja bu demee ba ci biir waxtaan bi day tàng. waaw xam nga nag euh, des fois xam nga man yàlla moom moo bindee noonu. waaw man su may wax toog naan waaw mbayang boo defee nii. lii nelaw ci man du yow man pour ma tàng dëgg xam ne maa nga il faut lépp de vivre. il faut nga naan eh mbaay. c'est nature. fi mu toll bari am na noo xam <laughs> am na noo xam noonu lañ ma bëggee. maa ngi nuyu waa eh, yaa Seyda bu seen TV wax na ma ko su du ma njëkk a invité. Seyda Habsa waaw Habsa waaw. xool ba mu yàgg mu ne ma Mbodja yow mu ne ah mu ne ma yow ku ñuy taal nga man lu émission bi gën a dem rek. loolu loolu dal mbëri. waaw nga xam na naa lu mbappat mi gën a yàgg. ma du ma gën a sonn ci laay gën a reprendre man foofu laa comme lu li suñu waxoon nag ma cuq nag lu guddi gi gën a sori mbay may gën a tàng muy gën a neex barke Sëriñ Bamba <laughs> nii nii rek maa ngi tàng moo ma jaaxal dégg <laughs> reviens sur terre dégg nga mbay ak ngay waxal dafa gaaw a réer léegi day mag te dafa décorosé fi mu nekk nii. <laughs> mosoo décorosé yow mosoo koo dem. yii li ma yàpp ci bay reere ko ci njaañ ji bàyyi rek ma décorosé toog ci wet gi 88 le 628 14 13 seen émission kër gi ñu ànd ak Mbodia Mbaye ma ciy ànd ak mbégte lool nag di xaar ki nga xamante ni moom mooy Thiamas ndax faaw ñu def jàkkaarloo ndax dañuy wax wax na ne. Euh, loxoy caamaas am na lu ca nekk ba tax mu toog ca caamaas <laughs> euh, itam ndax li nga xamante ni moo war a nekk ci say loxo ndax ma nga ca am déet kooku caamaas beneen bi moo ñu ciy tontu <laughs> mais nag euh, Mbodja difficulté yi bari na ci biir néegu sëy yi torop torop torop mais man bi ma ciy jël tey bi nga xamante ni kenn ñemewoo ko waxtaane parce que nee naa leen <laughs> lu ma neex wax Mbodja Mbaye lu ko neex wax ci yar ak teggin parce que nag dafa am loo xamante ni jàngale sëy lay doon mais pas lu vulgaire. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax Mbayang sëy na. Mbooja Mbaay sëy na. Mm-hmm. kon donc war nañoo mën a seq waxtaan boo xamante ni. dañuy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy sunuy mbokki ñu góor ñi. Euh, waxtaan ak sunu mbokki jigéen ñi ñuy fàttali mbokk yi rek ne. Euh, appels yi moom mu mënuñoo am Mbodia Mbaye ci portable mhm. li ñuy def rek mooy jaar ci 88 628 14 13. wala 00 221 33 841 23 34. su ko defee rek ñu daal di àndandoo ak yéen ci biir waxtaan woo xamante ni rek dañ koy séq lépp nag jëm ci biir kër gi. Mhm. lu tax apprécier amatul ci say waxtaan rek lay gëstu tey ji apprécier amatul ci góor apprécier amatul ci jigéen lu tax loolu. surtout góor ñi góor ñi mais waaw góor day yokk ngóora. waaw góor du yokki wagg waaye. waaw waaw mhm. ndax tey ji yow ngay jigéen may jigéen nii rek yow tey. waaw yow nga sañ si ñëw ah, soxna Mbaye li nga sol rafet na. waaw ii soxna Mbaye si tisib moom rafet na. yow rek yow boo xee sa digganteeg yàlla di nga am loo yëg sa xol. da ngay bég di nga xam ne yow sañse nga. damay tiitaru nga gën a tiitaru nag parce que il faut nga joggantu ko nag daal di a baaju nag xam ne mbooja kat nee na ma li ma rafet na. man dama bari tiitaru. waaw mhm. mi ngi noonu. waaw te nag jigéen ñu bari xaaj ko jënd seen bopp de sa gox seen i de. dëgg la. mbaay da ngay gis mbubb mu rafet nga sànce ko ba rafet. waaw guddi jot nga def déguisement bu rafet. te ku nekk xam na déguisement yi léegi yombul de xaalis lay jar. mais am na ñoo xamante ni ma la ay góor lañ ñu ngi toog. waaw ñu ngi réfléchir naan est ce que mës naa jënd sama jabar juróom-benn yaari wax. ee eh, am na ci amu ci te jamono ji fa raar nag. Mhm. ñuy taral jigéen ñi nag ñu ngi fi. dëgg la ndax munoo maasale ñëpp. Mhm. am taral jigéen. am na mhm. góor ñoo xam ne jigéen du leen ko defal seen biir kër. dëgg la comprendre nga mais am na ñoo xam ne nag. Hmm. defuñu xooluñu. déedéet apprécier wuñu bëggee wuñu nopp gi sax duñ la ko confirmé nopp gi ah waaw mbay tam ñun dañoo bëgg lu baax nag dañuy bëgg nag jéeg bu tollee fenn fi di bajantu. see ba ngay tàng nag wax leen. xam nga def naa fi vidéo xam dama ne moo tax góor ñi taarkal la dañuy rëy ba matas macha allah nekkee yow sax ba tollu fenn fi. waaw lu tax sax duñu duñu vivre nga xam ne ñu ngi fii. def naa ko vidéo. vibrer waaw. boo nekkee sa soxna boo demee ba jeeg di wóolu mbooj téléphone di ko laaj naa ko lan moo manqué ci man ba tax sama borom kër bu nekkee man sax ba war a toll fenn fi maanaam ba a yëg boppam sax du foofu yëg boppam dafa am ñu fay wax allahuma ma janni bi ni seetaan ma janna ba seetaan maa la <laughs> janni lan <laughs> waa <laughs> xam nga loolu boo ko dee wax mbooja eh, arrêté leen boo ko dee wax mbooja réer nga parce que man sëy bi man sama aaye bopp la man sama aaye bopp laa ci yow man ma jëndee ma seetaan ma si farñu ko laa ci man sama yoon ci mara naa ji doo ci yegg non non wa jannati boobu am na leen loolu mën a dugal suñu nopp bi lu ñu a neex mooy lan ah mbayam vivre sax xam nga ko ne taarkalla man sama jabar taarkalla nag moo sa jabar mën a baajantu nag xam ne nag man taarkalla man jeeg bu pare laa sama jëkkër yëg na dara parce que nag képp ku la ko wax ku la ko waxul même kawlal boo ci nekkee sa borom kër ba mu war a yëg boppam loolu muy def ak yow sax day day am envie boo liggéey nga gën a sawar mais borom kër bu yëg boppam mel ni sees bi jeeg jaa koy jooy damaa toll foo xam dara réeratuma. léegi demal rek demal rek yow. parce que man te jeeg ji dañ non dañuy wax ak yow man dafa am lu ñu ma xamee yow yow demal rek ma tal togge samay tànk def ni Mbaye dañuy wax ak man. ayca dafa am loo xam. ay caamaas gaawal ñoo jàppale ci biir néeg yi muy. communication. Mm. ak apprécier ak tagg jigéen bàkk ko. waaw communication bi moom. waaw ak tagg jigéen bàkk ko yow sa jabar sol déguisement bu rafet. Mm. war a dugg ci biir néeg bii. sëri gàtt yi pel yi digal say fer yi baax. des fois nga def sa nuisette sa nuisette bu baax war a wëndeelu ci biir néeg bu war am loo sëgg fol taal cuuraay fekk ko ci lal bi mu tëdd nga koy wax ak moom lu neex góor gi ni zëmm ni armoire. mais loolu boo ci bëggee dëkk toujours toujours sël bu weex toujours cuuraay toujours. mais mbay ak loolu am nag. chaque jour chaque jour jigéen noonu la war a def. vidéo bi ma génn fi mu toll chaque jour chaque def de. réew mi toll foofu. man lu yee tax ma décroché. <laughs> xam waaw loo xamante ni. Mm-hmm. Euh, bu dee ay lekk ki naan ak yeneen comportement mi ngi seen kër. mu ngi sa kër papa. dëgg la. dangay am mag bu góor ba ko seen kër. am rakk bu góor ba ko seen kër parce que daganu la. dëgg la waaye léegi ku góor ki nga war a fekk di moom ay doom di ko jur. di teg ci mm-hmm. kër gi. Mm-hmm. lan moo la fa yóbbu. lekk ak naan de. du sol yére de. lal ba moo la fa yóbbu. te lal ba nag mënin la. te ku ko rate rate lépp. dégg naa am na jéeg ju ko rate nag. dégg naa la nga seen dañ koo waaw dañ koo rate nag. mais balaa ñëw ñëw ci jéeg ji comme da nga ñëw fu am solo ci góor ñi parce que nag bari na lu lu jigéen di posé wu la question dem ba xeeb boppam. waaw dem ba seexlu boppam sax. parce que li ko waral mooy comportement bi nga xamante ni moom la góor di yor ci biir kër gi. waaw te bu génnee ci mbedd mi. Euh, day dégg ci jëkkëram loo xamante ne sax ils se disent que ne est-ce que man réellement sama jëkkër la. ndax moo wax loolu. est-ce que du sama jëkkër man nan laa mel taxaw ci seetu nan laa mel est-ce que war na naa ànd moom. man la ndax ñàkk apprécier audio bi ma jot léegi nii ba génn barke Serigne Touba kooku jëkkëram moodu moodu la. fi mu toll nii mi ngi waaj a ndaw si nee na ma lépp lu jigéen di jënd. Hmm. man dama ko jamay nduggi teggi samay natt lépp dem jaayi ko ñëw toog. Hmm. xam ko kon dara mu jëkkëram dugg ci. dëgg la lan la soxla kontaan naa apprécier te ba koog ci kaw lal mais sa jabar nga ko ci farata am foo koy yemale. boo nekkee moom ci biir néeg bi naa ko raayal fii bu raay fii fépp laay raay mën boo ji pour lan limite interdit au moins de 18 ans dañu taal lamp yi nag ay daay la waaw mayang nañuy taal làmp yi xale yi bari kersaan lañ direy ci biir kër yi xale yi bay xamuñu lu muy sëy parce que kerte ci kersa gi moo tax man moo tax sama sëy bii la ma ca arrangé wul ci diina jama dama koo teg nii jël sama aaya bopp téye di dund la ma ca neex man allahuma jannib ni eh janni beeg man loolu lépp duma ko xool yàlla nee na tool bi seen tool la bay leen ko nu mu leen neexee man bañ naa boo xëy doxalanteeg yeneen waxuma ko man sëy rek laay wax sëy laay wax mais xale yi bu ñu fay làmp bu ñu amul dara lu nekk ci yaramu jigéen lu jëkkëram du sa xool Thiamas mi ngi Kër Massar maa nga fa toog di ma dégg Thiamas maa ngi lay nuyu bu baax di la <laughs> masawu coono yàlla na yàlla dëgëral la yàlla na la yàlla taxawu yàlla na la yàlla jàppale bu baax a baax demal man tey du ma wax dara. loolu <laughs> tey du ma wax loo xamante ni moom la di manqué. waaw man nag ma leen di wax nag boo ko jongee yàgg na fi ñëpp a ngi koy wax. dëgg la taalal taalal cuuraay takkal fer moom wër na. dëgg la comprendre nga est-ce que loolu téye góor ci kër. non non moom nag laay ñëw. jongee parce que comme yow fi ngay wax ni comme liñ naan là je passe je laisse des traces. waaw foo bàyyi fa trace. waaw loolu moom. jigéen ñëpp dañ ci war a d'accord léegi nag waaw kay mais dama mas a dégg benn nit ne togg gu neex téyewul góor jonge téyewul góor lan mooy téye góor mooy góor gi bëgg nga téye ko waaw xam nga li ma la waaw donc yooyu yëpp des fois jigéen ñi dañuy dem ba finalement doot xam nga mënoo yor ak njaboot war kii quinze ans kii nangam at nangam at nga war a lijjanti ñu war a tëdd ak nangam sangam nga bëgg dund loolu loolu itam Eh, des fois sëy foo xamante ni kóllëre moo fay téye nit xanaa xamoo am na mag ñoo xam ne ba nu ñu màggee te ba ba benn as bi dañuy sëy ñu Sénégal nag loolu sonal de ku ci sëy moom daal samay doom laa tal day déet tal doom yi nag bàyyi ba tal boppam de ah bi day tal day tal boppam nag parce que am na góor ñoo xamante nii hmm. ku leen téye ñu toog ndax li ñuy génn di ko dund ci biti gënalu leen danga koy téye mu toog mais góor tamit boo ko teewul mën ta toog toog góor dafa bëgg lu neex li ma ko waxee sans pôle ñëpp ñëppay bëggee ñëpp bëgg lu neex. est-ce que du leen rakkaaj ba ñu yaakaar ne lii comme benn la benn boo gis ñaara ko ñaara ko ko dàq. waaw des fois day baax ñaar nag te jeeg ju bari ñu ngi leen takkal ñaar ñoo tax ñu takkal leen ko de. Hmm. góor ñu bari takk nañ ñaar du lu nu mën da dañoo def leen arrangé. ndax lan. ki ñu yor ci biir kër gi safur góor safur jigéen. mais léeg-léeg ñu dem rëbbi ji loo xamante ni moom yaasa bi du ki soble. ah da koy gisee ci jëmm ji rek ay la muy saf ko ko ma ca ko xam de. ah d'accord jàngalaat na ma. Ah, ay gis mbooja mi mu ñuul ñaaw rek nga takkal ko nga takkal ko di koo xamante ni tarkaa koo xam ne ma nga njool yegg ca kaw. waaw waaye mënul li jëkkër ji ñaaw koo koy yóbbu jëkkër yombal xiyaam di ko andiwaat. ki mel ni carte mémoire. et eh, secret boobu gars yi xamuñu ko jeeg ju bare ngi tànk man kii dama koo soxla man ma ko sax mbindaat fekk ni réer nga. moo jommal waaj. eh kan moo yóbbu waaj bar sàq di ko andi loolu tax waa ji ko katiw téye góor du sëgg fu dara newul. est-ce que maa la dégg 88 la 628 14 13 affaire bi du ci taar. affaire bi ci ay feem la ci biir ak ñoom seen. tabarkaal macha allah yal nañu yàlla may kattan ak wér goo xamante ni dina ñuy mën a engagé wu ci yu mel noonu. loolu nga wax léegi posé ma question ni ma jonge teewul góor. waaw toog gu neex teewul góor. waaw yaa ngi dégg. waaw mais bokk la ci liy waññu góor. bokk na ci li koy wàññi. li koy wàññiwaat. ni togg na ba dee te dara. waaw non bokk na ci li koy waat mm. mu dem ba ci digg ba. Mm. xam ne lii mu nekk du yoon xanaa xamul nag mbay takki wujj yi nii yooyu yëpp nii. Mm. ak wóor di doxaan gii nii. dafa am lu bari lu ci gée. gis nga nag mbay neexul ba neexul waaye benn jigéen bu ci nekk nag. waaw bëgg a téye góor nii téye ko sa wet nii mu ne ka tiw téye. waaw koy liggéey de. da nga koy liggéey. da koy liggéey du ay caaxaan de du looy toog nii di xoole pare nag ba koo tee ci biir kër gi te dafa am góor ñoo xam ne ñoom ñooy bifu nag ne la ñoom doo ñu téye parce que kaddu dafa góor dafa am kaddoom. ci biir këram ci biiram. ma ma ci yow biir këram góor loolu la am ak poosam ak yaramam ak poosam. ak poosam ko toppatoo waaw. di ko jox muy def ci poos bi. waaw déedéet muy poosam bii boo wàccee loolu lépp pour nga récupérer poosam day yomb. d'accord. xanaa xamul des fois góor di la jox dara jéppi la. mais des fois góor di la may dara. di ree parce que ca ñaanin bala. ca ñaanin bala ca bala. dëgg la. dara tamit des fois nga tarbiyu góor ba mu xam ne man sama jabar jii su ko fi bàyyi mun ma lu ko gën. Mm-hmm. dem ba yërmaande dox seen diggante parce que ni nga xamee ni yow dëng na. Mm-hmm. nga xam ko yow ni ci tegg sa tànk di sëy li ngay say yow. Mm-hmm. boole pat di ko xamal ne man li ca sama yónneewu ci waaye boo duggee ci kër gi nga xam jeega fi. boole ñu bari na ko ñu réglé mbir mi noonu. Mhm. dañuy bëgg toog di sëy sëy bi dëgg la waaw dañuy dem ma naw seen bopp ñun jeeg piir lañ waaw pourquoi beneen du ñu fekk si ëpp na léegi nag foofu ngay naagoo yow toog mhm. pour yow sa jëkkër war ta xam keneen mhm. gis nga góor ñi yàllaa leen binde nag mbayang benn ñaar ñett ba dëgg la tey jëkk jigéen bu fi amoon jëkkër am far coow lu topp la piir jigéen yàlla góor ni yàlla leen la ngay am benn ñaar ñett ba ñeent ba ñeent te tolluwaay ba la ca tolluwaay ba di nga am di nga am jeeg boo xamante ne tarkala nekkul dafa tële. waaw mais góor mooy toll foo xam benn jigéen doog dootu ko mën a satisfaire. Hmm. sëy jigéen ci njëkk a doyal di. sëy jigéen ci njëkk a doyal di yow 50 ans boo ci duggee fi ne lu la jox nga jël fatu ji. mais léegi fi mu nekk nii gars yi 50 ans fi mu nekk nii lu nekk la ñuy mottali koo de. mi mi oh <laughs> am na ñoo xam ne est-ce que nekkoo di jaay bagage yi yow. <laughs> maa ngi ci de. xam nga ñi ngi koy jaay même pas 40 ans. waaw. ñu gaare non Mbayang ba tey am na ci góor ñu njëkk ñoo xam tey ñoo gën a dëgër góor yi bees yi ñoo dëgërut moom ñu bees ñi ñu bees ñi moom ñoo dëgërut góor bees ñi woo leen ko wax leen que ca fooma mm. bu njëkk góor daan na judd ba am 30 ans mm. te xam jigéen maa la dégg waaw du xam jigéen mm-hmm. du gis sax pooju jigéen barki dem fi wax ko fii ci émission mardi bi dëgg la góor daan na toog ne bu daan dem xumbal ni te bopp ñu fecc suñu cër feeñ dafa raaroon mm-hmm. du ko gis mm-hmm. mais ci suufu kii la ñuy sëgg di yër te soo fa bàyyi yow sa jàpp tubay dong bu ñu ko séenee nde yendoor di reet kii tàpp kii kii tàpp ke gis naa yel bi gis naa li benn groupe bi la woon da leen di jar taxaw ci xumbal bi commencement ba fin te bopp nga gis ngay bëgganteel xumbal ba rek ngeen mën a gisante mbaa gumbe ga ma ngi noonu mm-hmm. foofu donc ngeen mën a gisante disque bi maa ngi koy may kii ak kii dëgg la soo yi sooda maama Fall Diak dëgg la ñu noonu kon nag yooyu yëpp noonu su amee mm-hmm. yàlla dogal góor daan toll foofu te du xam jigéen tey góor di am 10 mm. commencé mbal wallaahi am 15 ans xam jigéen 20 ans nga roode di nga di nga naa doom kat. ku def picc mu génn nga door bal ah tamit bu dee ñaay wet dina génn te doo ci ah, dara bu dee da ngaa yor sa kuur gën gu nga bëgg koo dëbb di dëbb gën kuur ga damm de. c'est <laughs> que commencé nga tàng léegi dalal dégg nga c'est que caamas moo ma def lu ma metti parce que ba léegi gisuma ko parce que bëgg naa mu waxal ma ci Mbooja Mbaay mii nee na ma mi ngi ci yoon bi di ñëw bi passé noonu la def am retard mais ñu ngi koy xaarandi rek di leen xaar itam yéen ci 88 628 14 13 00 221 33 841 bi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen ci lépp loo xamante ni naqar lay doon ci biir néegu sëy te xëy na mënuñu koo toog di ko waxtaane waaye nag sañ nañ leen ko indil ci biir seen émission kër gi ndax bawul dara ci lépp lay dox donc fas yéene nañu dimbali jéeg ji dimbali itam ñi nga xamante ni ñooy ñu góor ñi euh, bala ñooy euh, delluwaat ci jigéen ñi comme ni nga ko waxee faw dañuy waxtaan ak ñoom mbokk góor ñi ñoom lu leen manqué ba tax du ñu apprécier. du ñëpp nag ñoo xam ni. boo hmm. def neex na. yow dégg nga sax dañ nañuy def nii. sax bokk waaw alhamdulilah rabbil alamin waaw te ngay bañ allahumma jannib na. allah alhamdulilah rabbil alamin gën a gàtt allahumma jannib ba mu ko bëggee tari tamit xaw ma ko nag <laughs> du ma daaneel. <laughs> am na foo xam ne Sarr amu fa yoon yow kay boo ko jënd jëndi ko sam xel. <laughs> laay Sarr xanaa jommi nga tey jii yaag sëñ Fallou. boo koy jënd kay jëndi ko sam xel rek <laughs> jarul nga ma koy yeggale ma. mais mais mais da nga wax apprécier loolu ci côté lal bi la ak néeg beeg yooyu. waaw mais apprécier bi dafa dem sax ci am na ci ñoo xamante ni ñemewuñu sax sant seen jabar ci kanamu seeni sœur. waaw am na ñoo xamante ni ñemewuñoo wax seen jabar. waaw góor ci seeni sœur parce que des fois di nga ànd góor goo xamante ni du am dara du man dara lépp loo xamante ni da koy def yow yaay sagal sa bopp dem jox ko sa borom kër mais bu teewee ci mbooloo sax siide naa wax ne diw moo def lii oh. wala sii de naa damay bañ samay jigéen xeeb ma mhm. wala damay bañ samay jigéen jàppe ma damaa ñàkk fay fayda mhm. moo tax lu baax li ma sama jabar di defal du ma ko wax mhm. boobu tam ci xeetu appréciation bi la waaw xanaa xamoon góor bala boo nobee sa jëkk dañ naan danga ragal boo ko nobee dëgg. waaw bala ñoo xam na nga dëgg. waaw il faut ñu diñ la ragal. d'accord moo tax jigéen pour nga mën a dëgg tam il faut nga bandi. il faut nga bandi. tant que déggoo tur woowu ñuy wax di ko woowi nit ñi te ñu ñi di ko bañ. ban naan la caga bi waaw. tant que waxuñu la caga bi rek sëyoo ko ndax il faut nga caga. mais tamit góor. réglé ci sa réglé bopp te yem ci sa jëkkër waaw waaw kay. ni ko taas cagal ba mu neex la yem ci sa jëkkër. waaw di la woo ba mu génne loolu laa ci wax. waaw cagal ba mu neex la yem ci sa jëkkër mais tant que jëñuñu la ko ci biir néeg waaw sa jëkkër ku confirmé la ko sa sëyagoo waaye góor tamit boo demee yow ba sa jabar mm. jàkkaarloog yow di la defal lu ba nga xam ne kii jàmbaar la mm-hmm. mbayeen koo gërëmul ba muy dund mu mm. dee bu ko gërëm Hmm, jaat gi la ñuy xaar de teg ina imam bala ba sa doom bu jigéen di sa doom bu góor di takk jabar ñu soog ji jigéen di sëy wala sa doom ji ko dégg xam nga mooy yàgg imam bala ngaa liqaam bala ngaa jullee waaw may ma ma seddeel ko bala moo dugg ci pax tey a xaar kese te foofu amul sens te loolu amul solo amul sens te maa ngi lay wax ne ñi jàmbaar nañ jàmbaar goo xam ni waaw ku ne ci rayal tay xar nga ko bu subaa nag la lay rayal ndax bëgg a sëy dëgg la pourquoi mbaye baax nangu ci jëkkëram lu ne pour pourquoi yow bu dara xewee mbayang sañ sa ba jekk tamul leer na li mu sol dëndoo ci tus hmm. ndaw tool gam mu yóbbu di la ko sagale sa biir mbokk joxoo ko ko moo dem njàmbaaram waa nag eh bu gërëm jotee nag xamal ne sama jigéen ñii nag sama jabar ji ku baax la dëgg la sama jabar ji féete na ma fii fii ak la góor ku ko ñi moo tabax sa jabar jaro jaru nga yor soxna ndax yow jabar boo demee ba teel ko sa bopp jël say engagement nag hmm. yow la concerné nag des fois dañuy parce que tamit bu njëkkee gërëm mee goro gërëm te yow gërëmoo yow jëkkër ji amagul sens. dëgg la ndax yow guddi guddi te néeg ba la. dëgg la kon nag lépp la fay nekk bu goro yi tëb njëkke di tëb ndax bëri na ci jeeg yoo xam ne seeni goroo ngi fecc seeni njëkkee ngi fecc te jëkkër ja béggewut hmm. kon jëkkër ja nag pour nga wane ne yow yaa ngi béggee il faut nga gërëm sa jabar ci biiru mbokkam dëgg la loolu du ragal sa jabar daa def lu baax nga wax ko ku def dégg ku deful doo dégg dara te boo yoree fitu gaynde ba doo defal dara waaw kay ma yor xool mu ma du ma la waxal dara dëgg moo tax nag jeeg bi nag su góorgóorloo ba tijj fenn. waaw war nga mën a gërëm nag apprécier ko. bu ëllëgee mu gën a renforcer waat xam ne sama jëkkër ji ku jar a sonnal la. te gërëm na samay mbokk te gërëm gërëmu góor ci biir jeeg buy sëy day tax ñëpp naw ko. dëgg la. day tax nag ñëpp naw ko nag waaw waaye muy def nga yooroo ko yooru di pat ndax defe ne boo ko gërëmee say say jigéen mere la te say jigéen di say feneen. xamoo lu ñu fay dëndoog seeni i borom kër. mbaa nga yaakaar ne da ngaa jar sax. waaw mi ngi noonu kon nag jéeg bi jéeg bi nangoo sonn ci yow. dëgg de ko apprécier te di ko confirmer say mbokk. di la wan ne jàmbaar la. boo liggéey mu mën a góorgóorlu. jàmbaar yaa ngi ci biir kër yi fes fi dell bari fi lool jàmbaar yaa ngi fuñ ci mënti doon macha allah jigéen ñi ay jàmbaar lañu yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla jàppale leen yal nañu fekkee njariñu njaboot gi bu baax a baax a baax a baax euh, dama ko mere du ma ko nuyoogum léegi dama koy bàyyi mu toog muy gaawante noonu di ma li njaa moom caamaas ma doon tudd léegi ak xeetu parfum gu neex man xam naa ni sa benn galon sa benn bon bekk yaakaar gi metti na ma torop ñu dellu fa nga nekkoon nga ne ñoom du ñu apprécier ñu le que ñu may ko mu dal. Euh, waaw du ñu apprécier waaw ñu koy jooy dafa bari. waaw ñoom góor koy jooy waaw ñoom góor ñi. koy jooy dafa bari. waaw te apprécier. waaw dafa baax. xale bii sax boo ko yónnee tey. waaw mu xaw a di di nga ko ah dawal waaw kumba waaw góor dawal. waaw. léegi li nga soxla léegi mu andil la ko. dëgg la kon apprécier. Mm. sa jabar sor lu rafet nga jënd ak nga bañ a jënd yëpp nee ko rafet na. ak di bàkk jigéen ñi. sama jabar dafa bu dee ci néeg ba. sama jabar dafa rafet bu. parce que loolu dafa rëcc caamaas. bu dee ci biir néeg bi tam day neex nga jënd déguisement bu baax. waaw sa waa xool la xam ne déguisement bi rafet na loolu te jàpp na la. waaw moom rafetul sax te jën sol la ko ngir yow. waaw mais apprécier ko. apprécier ko parce que ñu bari tam wax dëgg yàlla problème boobu lañu am. dañuy góorgóorlu bu baax. Mm. ci seeni borom kër. Mm. gis nga kawlal bii. waaw soxna Mbaye barke Seexul Xaddim li ma defar ci dëkk bi bari na. loolu moom moom barke Serigne Touba Mbacke wallaahi li ma defar ci dëkk bi te du cadre jonge bari na. finition yi nekk ci biir néeg te daan réer jeeg foofu laa dëpp ba mu mokk teg ko. finition yi waaw. te dafa am yu bari yoo xam dañ ko da erreur yi yoo xam dañ ko daan pett seen biir néeg tey apprécié bii nekk ay takki ferek taal cuuraay rek mooy jonge yi mais am na mbóot yoo xam dafa nekkoon ci biir sëy te daan handicapé biir sëy mooy nekk ak sa borom kër yi te xamoo lu mu bëgg. Hmm. xamoo lu koy daaneel ba damaa dee ñu lay woon naa la sama jëkkër la mooy point faible am góor lu jënd point faible am yow yaay làmb ba daj yaa koy jeex point faible yamul fenn kese mais na la ko may temps bi moo ma jaaxal nag moo tax léegi ma wax la ko ni la góor boo xasee ba tëdd ci biir nekk amul fooy yamale sa jabar yamale bi lañ war a ba raqari buusi naa da koy def ci keneen bul laal bul jege. waaw kay waaye raqari buusi naa si ci biir nekk amul limite boo génnee feneen nag neen la bul laal bul jógee mooy raqari buusi naa <laughs> léegi nag ci biir néeg bi laalal fépp taal lamp ba mu neex fi laa la ku def la la saf soo demee ba yegg fa nga war a yegg nga eh, tiim sa def ci moom la la neex bu demee ba war a yegg nag xanaa dina la dina la fi wala mu la ngóobi la sax ngóobi waaw wala mu ne la nii wala mu na la alhamdulilahi rabbil alamin nga xam ne yegg na dara waaye li sëmm ni garab dama ko ne allahumma jannibni seytaan na jannaba seytaan maa rajaxtanaa mu ne ma waxuma loolu <laughs> day gudd yow yow mën nga loolu caamaas sama Mbaye maa ngi lay maa ngi lay nuyu naruma la woon na may temps pour boo nuyoo de tey lii laa fi indi man def lu ma saf <laughs> eh, di di gërëm si bu baax mhm. eh, eh, ñaan yàlla suñu daje bi yàlla bu mu doon suñu mujjug daje amin lu ma yàggawut nag te wax dëgg yàlla ba ma ko déggee muy développé. Mhm. Euh, da ngay xam ne xam-xam lay wax. dëgg la xam-xam lay wax te lépp loo xam ne da koy wax jëmale ko ci askan wi. Mhm. Euh, na am na am éthique ak déontologie. te jëkkëram caamaas la tudd dëgg loo xamante ni nag boo ko joxee sa boo ko joxee askan ñu mën koo jëriñoo. dëgg la euh, lenn rek laa bëggoon ñëw mu ñëw ci sono sono ko ci li mu waxoon sànq. Mhm. diggante way dencante yi. waaw ku ci nekk da nga am rôle boo xamante ni da nga ko war a taxawee. dëgg la. te ku ci nekk boo perte li nga doon perte sa poids. xam xam damaa xam ba xam dégg nga baax li mu bëgg a wax. maa la dégg. dama ni. Mhm. ñaari way dencante. waaw ku ci nekk dafa am rôle bi nga war a matal. Mhm. te ku ci nekk rôle ba nga war a matal boo ko bàyyee. perte sa poids perte sa poids. Mhm. boo doon posé cent kilos bu nu lambee coow fekk fa vingt cinq kilos. musiba la. Euh, gis nga soxna si buñ sorante buñ sori. mokk pooj am na. waaw lu am la lu wér la. Mm-hmm. waaye mokk poj bu nekkoon fukk. Mm. benn ma ko ci manqué. muy ban. ndax nit mënta matal lépp. Mm-hmm. waaye sa borom kër woon nga ko mën a toppatoo ci lépp. Mm-hmm. ba ba bu yegsee xam nga lim bëgg xam nga lim bañ xam nga lim soxla. est-ce que dégg nga ma. maa dégg. sa borom kër. waaw bu ne waaxu ci ñëw toog. waaw yow xam nga lim bëñ xam nga lim bañ xam nga lim soxla. dëgg la foofu la soxlay mokk poj. Mm-hmm. sama jabar ji dafa jonge mm. ci lan la jonge ci lan la jonge ci lan la jonge jonge dafa war a nekk à 100 pour cent matale lépp ou bien jonge dafa war a nekk benn partie dont ko nit mënta matal 100 pour cent. waaw waaye bu nekkoon jonge bu nekkoon 100 pour cent. waaw lu mu bon bon bon ndaw sa war naa am 99 pour cent benn ko ciy manqué. dëgg la ndax nit matul. dëgg la waaye 90 pour cent yëpp da ko war a maîtriser. xam nga kan muy borom këram. d'accord xam mm-hmm. li mu bëgg. xam li mu muy bañ. Mm-hmm. xam carrément kii kat lan lay soxla. dëgg la nga matale loolu yëpp. soo ko ñuy mhm. waxee jigéen ñu jóge mais léegi nag bu ñuy wax jóge ci ñi ma ko sañ a wax. mooy dana yaakaar ni biir néeg baax. Mhm. te loola yàggut. Mhm. moo gën a tuuti cim sëy. ñii dañuy yaakaar ne ay ferlaat. Ah, ay chaînette yeeg parce que léegi naan léegi naan léegi ku wax jaljali sax ñun la da ngaa xewi. ay chaînette laak. kuy chaînette ay cu ah. kuy chaînette. comme mënatu yeeg yooyu. Ah, baax na kun ci mënatu yéen nag yéen laay waxal. kuñ ci mën a te ba caabi ji riir di am problème <laughs> bu benn góor nangu ñu ah kay. ba pare kilifa dëgg noo koy mënati. magum jëm wàcc ñëw këram. waaw soxla boppam. nga ne yees ay loxam yeew. Eh. nguy ba caabi ji riir waa kooku fan ba pare koo mënati sax lan la mën a def moom. boo cristal bi ay am. cristal ban bu sew bii. mi ngi bi mu saf saf saf bii. li doon ci ñam salaam mi cristal mant bi. allahu akbar bu sew bii. góor ñu bari seen i cër bañ nañ moo leen ko teg. waaw ndax lal dafa naturel léegi léegi sëy ba ci boppam dafa naturel. naturel loolu moo fi nekk. dafa naturel naturelatul. lan wuti. naturelatul lan wuti jëli ko. indi ko ci biir ci biir néegu sëy bi. loolu bokku ca. waaw li ma ci jaaxal cristal bi ni mu seere mi ngi noonu moo tax yaa ngi tiim góor di daj ci moom lu nee nag ci kaw lal bi. waaw ne ca moom bët yee jooy rek nga defeen jàpp nga ko jàppoo nga ko. ah maama kaay nag ma wax la leen. mbir nag ba ci toll ngay ree nga ciy toll di ree nga ciy toll di ree at na dox nga dem bu mujj gi di jooy bàyyi xam nga loo xam nga day la ko foogee waaye tey cristal yow loo ñëmew ta sax sa gémmañ mu yàgg ci a dëgg nga sax yow war a ba pare mënate ko auzu billaahi mina shaytaani rajiim ama des fois gis nga jong bu arrêt ngeen di wax bañ li ngeen di def gis nga <laughs> bu arrêt <laughs> lii laa bëggoon moo tax indi la arrêt kat jaag yaa ngi rëy nit ñi leen ko ci yéen arrêt kat jaag yaa ngi rëy nit ñi mi yéen defar leen rek man nee naa leen man damaa décroché te it dafa am lu ñu ma xamee defar leen rek yéen ñaar. non non non non Mbodj dafa dàkk rek xam nga problème yi ci première problème yaa ngi ci réew mi te góor burum kër yaa ngi koy dundu non c'est vrai parce que nag euh, impuissance bi bu ñu koy wax léegi nii bari na te ndugg maa ngi gën a bari nit ñaa ngi gën a te. te wàññi naa ci lu bari nag. waaw. samay vidéo wàññi na ci lu bari ndax lii nii daf na ñaari vidéo xam daa wër Sénégal moo tax ñu bari freiné wu. mais demal demal day doo xool tey fi ñu daan jënde yooyu ñuy utiliser jigéen ñi saf safali bu ñu ko daan jënd comme kuy jaay dorog da ngay wiiri ndànk bokkatu ci bitig bi ñu bokkal la ko nga génn waaye mais loolu pour la nga ñëw jox ko tey góor ñu bari tey fan daan jaar bu buñ fa jaaraatee dara dootu fa saf ñu xam ne fii la fa nekkoon nekkoon waaw léegi dinañu bàyyi lii léegi na day dem nag bu jural la feebar cancer bi ni mu gaawee ci jigéen ñi waaw wax naa leen ko. dafa am invitation boo xamante ne ñu ngi ma boole woon ak benn sa surtout raison yi. waaw mu ñu ci bari ñu ngi leen ci tax di leen ko jaay lu seer. mais tey jigéen joo ci tiim tey da ngay tudd yàlla seen kanam yàqu la bu yàgg. te fii nag góor gu fi sax xoolal jigéen ju fi yàqu góor ñu bala fi ah. waaw waaw yenn kóllëre yooyu amuñu ko de comme da ngay mën ba mën a too góor am xolu bala foon la ginnaaw waaw waxutuma laa boo woon la ilaha illallah dala fi ba ka faale wuñu ko tuuti minimiser la ñu kii noonu commencé di la minimiser nga naan ko ku baax foo jë mun a la maa ngi ñëw mbooja da ngaa bëri wax pour ma sonal mënatoo koo tee kon képp koo xamante yaa ngi taxaw sa digg ndaw rek yow doonu jeeg xam la nga utiliser ba bu ëllëgee mbayang am na xale yoo xam te ñu ngi ci vingt cinq ans di sëy wallaay azim ki sëy quarante ans a nekk xale xam nga ko loolu koy maya ñoo raw payage foo jaar jàll xam nga loolu koy maya man aca mbooja xam nga loolu lay may lool naturel waaw naturel waaw kay sanu mag ñëw ko bëggoon sa bo eh, ordinaire naturel kese gis nga boo fi nattrelewul waaw boo fi nattrelewul waaw billaahi dugg dugg ci gaal goo xamante ni ne gaalu wala lay doon kese xam lu nu sonal waaw arsenal yi ñu jël uh-huh. dugg ko ci négus waaw ba jàmm la <laughs> dina ci ñëw mënta ñàkk <laughs> émission benn demee tey jii <laughs> danoo danoo yëngal Sénégal 88 la 628 14 13. waaw lii ba jàmm la. nga nga yi ñëw. jël. waaw dugal ko ci néegu sëy bi yaakaar ne loolu mooy sëy bi loolu moo leen nax. Uh-huh. dëgg la. billaahi te léeg-léeg da ngay waaxu ba dugg kër jeet da ngay mujj rus. ndax xeetu cooraay bu baax sax mënu ko fàtte. ndax dañuy jàpp seen borom kër dan lay pompa pompa pompa pompa pompa pomp ba nga tuberculose yow. ndax lan. pompe ay pompe xeetu pompe yoo xamante ni nii kenn xam lu mu doon. bayal <laughs> bayal. cooraay ju baax sax ruus nañ koo taal. cuuraay ju goo xamante ni nii nemmele lay doon wala nil miig. wala cuuraay naturel. naturel xam nga góor ñi. wala nga wut santam comme tamit li muy muñ dafa bari li nu boolee bari. lu ñu boole ñëpp féetale ñu ne ma mais nañ ma féetale ak ñoom. waaw parce que dañuy wax may dégg man li may communiquer ak ay góor du ma communiquer ak jigéen. dëgg la parce que sooy xool tam ñoom ñoo ne ci néegi. waaw ki ci lalam moo xam ne ma tax. dëgg la. mais góor ñu ci bari dañu am problème fi mu toll nii Mbaye ñun dañu def ànd ngay lay bam bam bam ba nax. waaw nga jël sa ñaari doon ci kër ñi dijj suuf. waaw mën nga cee taal tuura ñetti fan ànd bi doom saa yoo xoolee doom bi mooy dund saa yoo xoolee saa yoo tëlee ki leer ci ko rek mu piis maa la ko wax eh. waaye am na góor yoo xam ne ne ma njegenaay yi ñu tëdd rek boo ja mbaay boo ci dikkee bañu ah. dara bu weex dañ koy dégg ah bàyyi sama njegenaay yooyu la ñuy xeeb naan teewul góor man gawma ne teewul góor benn góor bañul cuuraay te taalin bala gis nga fer dara bu set wecc gis nga fer yi benn góor bañu boo ci ni rëjax mu topp la te takkin bala takkin wa waaw takkin ba dafa am yéegi ba ca kaw lal ba sax dafa am per boo takkee da nga koy yee ci kaw lal bi. man naa la man damaa ah, muuma ëpp naa def de ëpp naa def de. man damaa muuma. ëpp naa def de ah. <laughs> est-ce que xam nga ni problème bi lan la. mooy. est-ce que xam nga ni sunu suñu wéyjur yu njëkk ya. Hmm. yal na yàlla ñi fi dund yal na yàlla guddal seen fan. amiin amiin ñi ci génn àdduna yal na yàlla yërëm. amiin sëykat yooyu. waaw pourtant ñoo jur xale yii de mais xale yi kenn di leen jàngulul sëy mhm. looloo tax ma indi ko tey ci kër gi problème bi am yëpp. parce que nee leen ñun sañ nañ ko. ki sëy kii sëy ak ki sëy ba tàggoo su ko neexee mu waxtaan ci sëy xam nga mën na joxe leçon. xam nga ban problème la ñu am. Benno Bokk Yaakaar waxal. barki yonent bi. ay ca dañoo mënta partagé. dañoo mënta. mënuñoo partagé. ndax. ndax ku ci nekk jàppal nga ne sama moroom bu ma xamalee. ma am gàcce. te jug sol sa dal. laaj sa yaay nan laay def. wàññiwul dara. te doom dafa jege ndax yaay yu ci bari nag foofu nag est-ce que est-ce doom bi la est-ce doom ji la. wala yaay ji yaay ji ci yaay ji laa nekk. voilà dama ne la yaay yi. waaw ñoo jur xale yi tey. dëgg la xale yi tey yi ñoo war a ñëw woon ñii di sëy si xale yi ñoo leen jur. dëgg la kon chaîne bi moo dem. Hmm. mais boo xoolee bu njëkkoon. waaw xoolee jigéen ña fa nekkoon dañoo mënoon a sëy. dëgg la gis benn kër gis fa ñeenti ñeenti jeet. ni hmm. ga. Hmm. seen i doom nekk fa doo xamee doomi kii doo xamee doomi kenn. wallaay dëgg la xale yi tey bëggutunoo sëy ci kay goro. lu ñu bëgg mooy toi seul moi seul. appartement boo ko toppee muur seul booy dee yow kasay dee. xam mursal booy dee yow kasay dee gis nga sëy dafay am fondement day am base dafa ñoo xamante ni ñooy toog ci base bi mhm. ñoo xamante ni wax dëgg yàlla bu nee kirtim balaa kenn taxaw ñu teg si seen tànk encadré waat famille bi encadré waat leen ba teg leen ci bonne voie mhm. ndax ñaari xale yu tolloo doole boo leen beree mhm. buñ sàggunal boo jëkkee gis lex bu nu def téeméeri junni nga yoro ba caa gis dóor lex ba lex ba am na lu mu def te ci ay problème la ñuy dëkk. dëgg la kon loo gisee problème yu bari loola te xale yi kenn jàngatu leen sëy pour ñoom sëy leen kasa la dem marché wut say pompe wut sëy yu kenn xamut. taayee nañoo booyal. sëy nii nii nii. mais loolu sax day ànd ak at bu ne day ànd defar fi nga tëdd. waaw. am na ñoo xam ne seeni tagar ba mu jógee ba ñu tegee ci la nga xam ne ci doon dara. cuuraay ci néeg bu set bi ci lay xeeñ neex ah. Hmm. mais néeg bu am million seetu bi soo taxee doo gis sa bopp coiffeuse bi nga teg ñaari paani tilim yoo xam ne dañ naan jeeg bi day tuxu dañ naan kii ndax day fay. c'est que damay góor ñi dem ba sa caleçon jaaratul nga toog di ko fóotal sa bopp. damay invité ñoo xam ne dañuy dugg samay 18 fois mënoo cee taal cuuraay ba mu neex asma rek la lay andil. baleel ba mu set. kese lu xotti néeg bi ba mu set fomp say verre. yaa ngi dégg loo pomp ci néeg bi mu neex boobaa gis nga bekk suukar boo amul cuuraay sama nga jël bekk suukar sotti sa parfum ba mu neex nga teg sa kaw dóor mu xeeñ neex ndax néeg bee set mais xale yi ku leen fekk fi ñu dem parc Seexul Xaddim nga rey dinaa la wax dara de. setuñu est ce que xam nga ku dégg ba ceg awee jugu ci. mën ngaa raxasoo ba set waxutuma nag di que xam nga ni poosay. waaw poosay moo tax doomi ndaw yi dañ leen di dërëj jigéen lu waaye mën yóbbu. mën naa la amee ñetti ya ñeenti ya. est ce que xam nga ni Ndioba Ndiaye ñeenti ñeenti ngi nii. Hmm. billaahi wal kitaab bi ñett yi ku koy seeyee yaa ngi si musiba. dama laaj lu tax. lu tax. banqa sa barab bu dee mën ngaa bañ. benn dafa am ñuy sëy sëyinu ginaar. Hmm. dañuy set ci biti tilim ci biir dëgg la moo fi bari dañuy set ci biti tilim ci biir ci biir sama classe bi mooy setum ginnaaw hmm. mu am keneen koo xamante ne ni day sëy sëyunu xar hmm. mënta muñ xiif mënta muñ ndékki mënta muñ añ mënta muñ reer loo ko ci joxul mbedd mépp xam ko na tey ndékkiwu ma waa kër gépp xam ne tey ndékkiwu ma hmm. tey añu tey sama jëkkër joxewul reer ndax mënu koo muñ mënatu koo téye ndeysaan am koo xamante ne nii day sëy sëynu bëy da ngay wax ak sa jabar ci biir néeg bi nga wax jox ko mu wax delloo la nga xëy dem Pikine fekk fa wax ja <laughs> jigéen joo xam ne bu sëggee ay waxam ndañ bu sëggee ay waxam ndañ hmm. mënta tee dara ñetti yi ku ko jàpp billaahi yaa ngi ci erreur waaye nag kaay wax la leen mooy pulli mbalit ba nu teg ci buntu kër gi lan moo tax ñu ko teg ko sa buntu kër di xaar oto bi ñëw jël yóbbu te pourtant boo ko tuuree danga ko fay dëgg la danga ko fay tegaat Mm-hmm. mais lan moo tax jigéen mën ta mel ni sëy sën lu ñu buub xëpp ko jeeg bi dafa ñëw toog ci ay nawleem waaw ay goram toog ay wujju peccogam toog waaw jëkkër jën a saraax mm-hmm. waaxu dugg ci biir néeg bi waaw mi nag gars yi may ma musaa Ndiaye ñëw ne xaaral ma yokk añ bi bu mu ñëwee ne ci yet añ bi tëgg ko teg ko tegal ko ci biir néeg bi jëkkër ji tëgg kompes waaw wéq bool bi mu xam ne ay nawle mi ngi ci mbit bunt bi mu jàpp buntu néeg bi ree gaa ne ko lay ree mi ne Moussa de ma ngay fecc ci biir nee na añ bee neex mu ñaa la ko ndax ay ay naw lay ma di toog loolu am na barke yonent bi hmm. am na ci jeeg yoo xam ne seen kër seen borom kër mën na leen def àddina ak li ci biiram nit mënu koo xam est-ce que ah wala yaa da nga lu sa borom kër def nga weli pande ko yii man du nga ni tuuti rek laa ciy wax <laughs> wala la ilaha illallah tuuti rek yow yaa wax lii tuuti am na ci jéeg ñoo xamante ne nii billaahi ñu ngi ak seen borom kër. Uh-huh. mu metti mu neex. Uh-huh. seen nawle mënu koo xam. dëgg la. mën na noo nekk ñoom ñaar kase ci néeg bi. ñu uh-huh. xulloo ba ni bàcc. waaye bu nit ñëwee loolu jeex na. moo tax man la jéeg jeex na. jéeg dëgg nit ñi koo xam. dëgg jéeg dëgg te attention xale yi eh, ma wax la leen xale yi léegi gis naa léegi ñu am ñu loo xam ñu ngi koy tiktok ci mbedd mi góor ñi nanguwuñu ñoom damay xulloog yow waaw merew yow ba bàyyi ba guddi jot mu duur lu duur yi mitti waaw te du mujj fenn noonu lay jeg di mel bu xañ sa bopp. bu ko bu ko xañ sa bopp. loolu laa bëgg a dégg. loolooy aar mën ngaa xullu moom ba ni waa lee. Hmm. gudd jot mu mel du yow. léegi nag góor ñu ci bare gedd nag. ak ah, xam nga lan day tëdd nit mu sol blouson. mbay ak nag kaay ma wax la. waaw góor yi nag am nañ ah, waxal ma ñoom yow. soo bëri yaa ngi daan jigéen émission bi du neex. waaw il faut ma ñëw ci jigéen ñi tamit kaasal leen. seen droit voilà. Ah, wallaay waxal ah jigéen ñaa ngi dee nag. seen xol yi dagg na nag ba wadd ci suuf. ñun loolu de. ah bari na. wax nga fi léegi kër de boolu añ góor ñaa ngi tàng jër ci biir néegi di bëgg a rey jigéen ñi seen xol yi dagg na nag te boole ci nag defulul leen tus teel a xëy tey guddee wàcc géwal yaa ngi koy taasu mhm. bëggoo daray góor mhm. sax baa ngi ñuy bëgg a rey ci biir kër yi mhm. sagu nan ba dee léegi ñoo daan mett leen tere suñu bopp léegi yéenee met takk seen dëgg dëpp tëdd am na vidéo xam naa ko génneel viol laa ko tuddee góor gu ci dëpp nga duppandi ko violé ko parce que bu njëkk jigéen daan tere boppam jëkkëram. Eh, mbaa ci jigéen xëy xëy su ma ji am na góor ñoo xam ne tey ji boo leen laalee dee. du yàgg de. xoolal waxatuñ ci néeg bi nag. non da ngay génn caaman may ma tuuti ma de boo naree caay caay ci biti. barke Serigne Touba may ma ma tàkk yow tamit. noppi naa calme naa la naan ndox. Ah, da ngay naan ndox dama leen tëjee buntu ba nga xam ne jàngoro ji cin luy baax la fépp waña. coow li coow li na de. Eh. barki Rasulullah. barki dafa am loo xam ne jigéen ñi. dañ koy misère man du ma nangu man jigéen sax. waaw li may jooy ma koy dégg parce que man damaa bëgg góor waaw tabax loo sëy mën la doyul dafa koo dëgg la mais am na loo xam ne mbay dinañ ma ko dee sama nopp bi hmm? parce que Serigne Touba dama naa la soo mënee toogal soo mënul demal xol du amatuma solution man boo du hmm. ma ko mën a muñu ah mais xam na laa bëgg a laaj jigéen lan lay dund ba ñu am sañ-sañ na ko demal ñëwal ma ci dafa bari parce que li a garaaw gis nga ndigg lii dañ ko daan am nu mu ñu neex nag ci biir kër ndax dañ koo méritoo waaw bi nga xamante ni tarkaal la moom lañ war a téye di ci tëllante ku ne di maye sa yaay say dëkkandoo ak sa papa jaak sa maam ja jotoon a gaañu ñëpp nga sulli leen maye leen xaaj bépp mayeetu mu kenn parce que pour ndigal pour ñu jot ci dañuy mocc ni kuy mocc borom dënn bu rëcc des fois bu ñu naree wayal góor ñee ñu koy xañ bu ñu naree wayal pour caay caay sax dañuy dañuy wàcc suuf wallaay azim sa jëkkër day ñëw ngay tarbiyoo ko raama ko sukka ko jonkan fu ne nga wundeelu faa papa baal ma ak góor gi ne sëmm ne bopp ni wi am na góor yoo xam ne seen xol yi comme xeer xanaa doon na def. maa gën a bëgg lu leen neex mais am na ñoo xamante ni kaay la gis nga fi mu toll nii mën ngay rëgëj rëgëj fii ni fas wu rëcc. waaw bëgg leen a bëggal ci néeg bu ñu ne sëmm sëmmiram. seen xolo tàng jër. mbaa ñu mat laa wàcc dañuy wan mat laa wàcc. da nga leen di neexal a neexal a neexal jooy ba sama yee. Mm. jigéen dina xëy ni tijjeet buntam kanamam toll nii wala jigéen di ree sax day forcer ree ji nga xam kii rey naq dëgg lay eh, reewul dafa eh, siiñ boo yàggee dégg ree eh, fekk boobu xol baa ngi bëgg a dagg parce que lu tax <laughs> bu ñu canaliser débat bi tuuti non damaa bëgg nga may ma tuuti rek nga may ma tuuti rek lu ma la foofu parce que li nga wax ni yépp ci jigéen dëgg la dama la nangu jigéen dafa war a muñ waaw mais góor tam dafa war a jigéen des fois góor tere boppam jabaram la góor ñi yow fi mu toll nii yow tey jii man te yow leer na la ni yow am nga droit de di ko wax barke ni defal ko man Mbodja Mbaye man tey su ma doon soyeg yow kenn duñu àtte ndax neex a wàcce loo mer mer su ma la wàccee caamaas nga wàcce ñu dund ba mu neex néeg bi neex mu mel dara musul xew kon jigéen lu góor lu mu meroo meroo ak jabaram il faut ma profité lancer message boobu lu ñu meroo meroo ak seen soxna yi bëgg du jotee seen soxna yi wàcc bëgg leen a jéggulu nang leen baal tax couple boo gis dina am réeroo mais tamit jigéen di raamaka woddooy sa rek naxtaana naxtaana naxtaan ba sonn alaaji faale woo ko bu yàggee nga rejeté néeg ba jël sa mbàjj dem ca saal ba tëdd mu fekk la fa waaw di raama lu nëmb dugg ci nga ni sëmm sëmmi rek taf ko ci kër gi di jënti woo ko faale woo ko jigéen ñu bare nga génn seen i kër gënulu leen mais des fois dafa am lu koy waral de mbooja xamoo ko de lu meroo la meroo la waaye léeg-léeg bi bu ñàkk la de ah. waaw des fois ah. ndigg la ndigg la wax naa ko foofu nag la bi du bind. waxuma dara de da ngay def nii ba sonn loo bind mu effacé wu. du jug sax bi da nga mer ni. Eh, eh, déedéet damaa xam ne bu ma passé bu ma passé rek ma développé. <laughs> xam nga kër gi ñëwal ñëwal. <laughs> waaw kay mbaay gis nga gis nga big bu cang. Ah. Eh, li ma li waykat ma naan. waaw ku ci yàq sa tuqu si ngalam. di nga riiti riiti mu tala. waaye tuqu si ngalam da nga koy takkaat ba mën ci riiti <laughs> bu nu fàtte loolu. ni ñu koy takkaate. Ah, bu daggee doo ko takk foo ko takkee bu guub bi boo defee picc mu la romb nga dóor bal bu ñëw wi ñëwee. dafa nànk nga loo koy dóor. gis nga foog ngeen xam leen. waaw. bëri na problème yi ci kër gi. billaahi. waaw. Eh, est-ce que xam nga ni góor jàmm rek la bëgg. dëgg la. bu nu nag bu nu canaliser débat yenn ciy góor. am na ci góor ñoo xamante ne nii. ak ki Serigne Babacar Sy jàmm rek la bëgg. dëgg la. doo ma laaj lu tax. lu tax ki xëy dem dang dangi dem wut ñu lekk ndax fu xol fi réew mi toll. nga xam ne ni ndekki amul heure boo ko see xippi say bët jot na nga daw wuti ko dang dang dang dang dang dang ñu neen déetuwaay nga yónnee ko ñu neen déetuwaay nga dawaat nga dawale waat dawale añ ba ñëw yónnee ko dawale réer boo ñëwee ko xam nga ni Serigne Babacar boo ñëwee sa kër jàmm bëgg est-ce que xam nga ni idée boobu nga am dang dang jooju am na ñoo xamante ne fekku leen ci barki yonent bi mais na dafa am euh, moo fi juri doomam sañu fee jóg du dem bàyyi fi ak njabootam kon na débrouiller mi ngi ne ampagaay ci biir kër gi waaw mais kañ lay développé allez-y. très bien lenn rek laa la bëgg a wax. waaw bu mbir amee rek am na lu ko waral. dëgg la. Euh, dafa am ñoo xamante ni nii wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñu ngi ci réew mi di sëy. dëgg la kenn déggu leen. Mm-hmm. te du dund leen fa lu ne. Mm-hmm. barke yonent bi luy weex ama ci ñoo xam ne seen borom kër ni mu weexee mara detaal yi. dëgg la. waaye seen euh, soxna si kenn mu kenn mënu koo xam ndax muñ gëm ko def la ko dëkkal. ndax day bañ kat barke yonent bi ndax day bañ kat boo ko defal dara ci këram. dafa am ñoo xamante ni nii danoo bëgg yomb. dëgg la man waxuma ñu bëgg lu yomb. Mhm. Mhm. man waxuma ñooñ de. dëgg la bu fekkee sunu borom dalaa def ngay kilifa. Mhm. ñu jox la nit ki noppam. nga xam ne jud gën ko judd gën ko ndey gën a ko bàyyi. yàlla def mbëgg la dox seen diggante ak moom ba takk am ci. nga jël indi ko sa biir kër. war nga ko wodd war nga koo dëkkal war nga ko dundal war nga koo suturaal. ci li ma jàpp. ku ne xam na ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. dëgg la. waaye jubóo day am. est xam nga ne daa neex sax. Euh, balaa nga ko xam nga juboo mhm. balaa nga ko xam. xuloo neexaay bi. laa nga ko xam juboo am. gis nga Mbodja foog ñu xam foog ñu xam leen daf la taxaw mhm. <laughs> nga ñaari way dencante. bu amul muñulante. waaw amul jàppalante. Mhm. amul nangu. barki Serigne Babacar Sy sëy ba du dem. dëgg la muñulante jàppalante. nangu nangu. gore am kóllëre. boo nangu rek est-ce que xam nga boo nangoo rek. parce que des fois jigéen ñi ñii dañuy ànd ak yow ba sa big dootul bind ñu wàcc la fa ah. boo nangoo rek. boo nangoo rek. Mm-hmm. gis nga bu sa la sunu borom bu la bis bu la may xoluk nangu. Mm. nangu ni nguur mu jëm ay nii mu mel sunu borom moo ko melloo. xanaa xamoo ne nii mu mel sunu borom te yàllaa ma ko séddee te yàllaa ma ko séddee. xanaa xamoo ne nangu googu dal mën na laa dundal. xanaa xamoo ne big bu jaamu yàlla la. big bu bind bàyyi bàyyi big bi bàyyi big bi big <laughs> yëpp ngi bind bàyyi big yi. xanaa xamoo big yi bari. xamul ndax bindatuñu. waaw stress day dal sax bari xamul tax bindatuñu. day dal sax jigéen daw bu day dal sax jigéen te yow ñoo jeeg boo leen encouragé. waaw. yaa ngi bëgg ñëw samay wax de. yow dama lay fekk man man maa ngi yéen a far. yaa mais am na ñoo xam ne te ni dawatuñu de. non non ankay. ku dawatul ankay. gis nga retraite anticipée dafa gaaw ci góor ñi. Mbaye Mbaye Thiamas. Mbaye ñaata grand place nga romb. mais Thiamas moo wax leen gis nga réew mi nag mu toll réew bu doxoon ni mu war a doxee doo judd di retraité réew mi fu mu toll nii ku yaa xam loo mën a liggéey na waaye coono nag dañ dañ nga ciy liggéeyee. yaa xam ngay artiste yaa xam ngay caméraman yaa xam loo mën a doon. waaye fit na ngay liggéeyee. waaw ndax réew mi koom-koom nga war a am amatoo ko. lu ci bëri dafa wàññeeku. mais yaa ngi koy xëy di ko ñees caamas. mais yaa ngi leen nag ci nekk boo xëyee suba sabab lu ne xaar ma dawi ko pour ñëw dund ko sama njaboot moo xam mu tuut moo xam mu bari. sabab lu googu moom laa lay wax. am na ñu ñoo xamante ne sabab lootuñu góor ñaa ngi ci taatu kër yi garab yi toog góor ñaa ngi ci biir kër yi toog li ma doon daw daw naa ko ba pare ay doomam a ngi nii bu nañu fexee teg ki yor ma. eh Mbaye mu war a nekk eh, yi débrouillé ñaa ngi daw mais nag Mbaye kaay kaay ma wax la leen de ñaa ngi de. Eh, Mbaye am na ñuy daw daw 60 ans dama ne am na ñu dawul. Mbaye am na ñu daw 60 ans ku daw 60 ans de courir. di ko daw di ko daw di ko daw di ko daw ba 60 ans dab la. waaw. yàlla sunu borom dimbali la nga am ay muskalaf yu nu wég waaw yoo xam ne patt bu nu làgg nu war laa mën a yor waaw ñu war laa mën a dimbali nga war a taxaw toog nag wiir sa wet waaw ñaan yàlla say doom dimbali la waaw nga li nga doon daw lépp ñu war la mën a dimbali mm-hmm. ah mais nag loolu loolu ku ne ñaan na ko yàlla mais des fois loolu condition boobu loolu damay d'accord ak yow mais des fois da ngay ñàkk poos ñàkk xam nga big bi mu ngoog bàyyi leen big bi léegi léegi léegi li nga koy comprendre déedéet des fois nag ay baadoo la lañ de dañ lay ci batu ci yoo xam ne nekkatu santaane ak di la ko big boo xamante ni nii ba nga amee ba nga amee vingt-cinq ans la commencé bindal di wër di bind di bin di bin di bind di bind ba soixante ans bu demee ba big ba can bindatul léegi yëkkatu fa nag bu demee ba big ba can léegi eh. <laughs> vingt ans bu guddee nga ne ci fii lay remplacé takkalee ko sol lu bula mujj gi sax da ngay jàmb bula di ko sol ci big bi pour bëgg ma bind big bi nag ma du bind te gis nga góoñu ci bari ne ngi ci tàngal ci kër yi seen i bigga bind tut ak ah, kaay na carrément ñu bëgg laa rey beneen bi ci des tamit yéen ku leen topp big seen bigam du bind beneen bi ci des mais lu tax yéen bu ngeen àndeeg nit ba mu toll foofu mënatu ko rek ah, ngeen ngeen bëgg ko dóor eh, ci xeer yi as dañuy toog muñ ko jigéen ñaa ngi koy muñ ci kër yi de bëgg ko mais xanaa xam am na jeeg joo xam mais góor ñi am fit mais man da lay ren yow sa big bindatul ngay sóoru mboo jambaay tam bàyyeeg bi ci kër gi yow leer na sa big yàqu na yow yow mbay ak mi ci kër gi wóolu Mbooja Mbaay mbay ak mi ci kër gi wóolu Mbooja Mbaay ni ko yàlla xam na ne sama jëkkër ji takkaat Mbooja Mbaay wallaay asim big bi bindatul ah te jëkkër jaa ngay takk di jéetal yàlla xam na ni big bi bindatul xanaa kon koo ko dëgër fit léeg-léeg am ndoxaan la koy def sax maa la ko wax seen seen bi day paan ñu toog jéeg bi toog ci kër gi ñu doon nag duubul jéeg naa ko mu ndox jur naa fi samay doom yu mënu maa yor ay ponkale xale yu góor te weesagul ay bigi ay a ab sëykat ba pare nag sa jëkkër nag jóg yaa ma ne ñii li seen problème xam luy seen problème ñu naqar dafa bari de. xam luy seen problème. mooy ñoom ñoom dana doyluwul. ah ngeen kay ah déet moo jox nag may ma xamee wen da nga may may da nga may may nag. ndax moo jëmbaay bu ndee xale bu ndaw ñu jé ñu jé de am am fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom-ñett ñu jëkkati ba seeg yëkkati la koo xamante ne nii yëkkati ko jox la ko. suñu borom ngay def ngay ànd ak moom. di ànd ak moom. 25 ans. deux kilos vingt cinq ans vingt cinq ans deux kilos. fekk ñu ñu am 40 ans ba mu am ay borom yi bi fekk bu nekk eh, bind ko. fekk ñu ñu am 40 ans ñu kon su bind say def nga composition lu ne def nga. bàyyi dem ba at mi <laughs> bind ba at mi. fekk ñu ñu am 40 ans soxla bi. ah ah ah, ah, ah yow fan nga gis big bi dem ba yombal xëyam Sénégal ñun fii gis bi fa la bi ba yàqoo. nee na nee na foo mës a gis big bi dem ba yombal xëyam. foo ko gis ku bind ba yombal xëyam. yéen lii la la yéen revenir sur terre revenir sur terre <laughs> ñi ah góor boo fi gis nag bindatul yéen a tax bindatul eh, ndax li ngeen boole li ngeen boole kenn mënu koo boole di bind fenn looy bind foofu moom foog ñu jeexalee fa mbooje parce que eh, taa baa ngi daal lan ngay lan ngay ma buy ma lan ngay yow a fiise lu ne lu ne lu ne ñu indi ko ah wax dëgg yàlla loo xamante ne damaa waroon boo sojee ma ñëw jël ci jël ci benn dammit defal la ko ci meew jox waaw nga sëgg mu dugg sa bakken yi sa poumon yëpp ubbu léegi nag nga dem ba mujj gi yow moom leer na la leer yàlla ne yow yow dootoo bind yow <laughs> ndax moo la ko yóbbee moo la ko ki kenn yóbbu sa ñàkk bind kenn yóbbee la kon mooy toogaat ci kër gi nga toog di njeer ji di naan ay lu ne xasim loor ak reeni Dakar ak ne nga naan mais bu fekkee big bi yàqu na kay man boo jàng ci kër gi di toog di muñ big bu yàqu bi kay da ruus na koo jàmbat ay doom di ko dégg mais du dégg ànd ak boo jëgee muñandoo big bi looy jënd di wuti sa bopp te nag xale yu ndaw la ñuy wuti en général maa la ko wax di weer sa bopp mais nag euh, soxna si naa la am na jigéen am na ci am na ci jéeg yoo xamante ni nii. Mhm. barke yonent yàlla Muhammad dund na loolu. dëgg la. mën naa la jox exemple. ay ca est-ce que mën naa laa jox euh, ki na làmba mbamba. waaw. foo ko dugal ndeysaan ci jigéen ju baax. lan moo tax dem na ba soxlatul borom kër. parce que tout simplement. diggante ma góoram këram a tax. alhamdulilah rabbil alamin. waaye nag jabar boo ko yàqee. est-ce que ñëpp mel na noonu. dama lay wax jabar boo ko yàqee. ñu ko raw a ci biir moo tax ma la ma tax man la. mais dogo da ko yàq barki sëñ déggoo li ma la wax ba léegi man. dogo da ko yàq ci biir ñi ci eh, kër gi déggoo li ma la wax nee naa la. Thiamas nee la dogo da ko yàq naa la ci feneen nag. dogo da ko yàq ak noo mën a mel. nee la am na jeeg ju koy muñ ci biir kër yi nee naa la am na jeeg ju koy muñ ci biir kër yi. Mm. ni patak moom te big bi bindut. parce que seen ñaari doomi góor wala seen ñetti doomi góor takk nañ seen jabar dina ci kër gi xam kooku di jënd gaa say big yaa danaan patak moom mais yow léegi bu ma nee patek bi bu yàqu bi toog ci kër gi yor sama kurus jaamu yàlla doo toog ni man looy génn weer sa weer sa bopp. xam nga léegi may foofu laa lay waxee. mais jigéen ñi muñ big bu bindatul ñu ngi ci biir kër di ko muñ. mais may ma tuuti may ma tuuti ñoom fan la ñu ah, jëm. tamit loolu loolu loolu. Euh, à part euh, astuce yi ñuy jël nga xamante ne moo indi sunu mbokki góor yi feebar yi te nag euh, lu ci bari jigéen ñi ñoo leen koy jox. bi ci des mooy da nga yor sa jabar tollu ci sa diggi ndaw yaakaar ne sa ndaw du jeex ku la romb ku ne nga lekki di bi ku la romb ku ne nga njogonu lu te jigéen ñi ci boppam am na ci ñoo xamante ni ñu ngi ci seen i appartement yu ne muut kenn du lekk seen mbaxal mu tooy ràcc mu dellu saan demee noonu eh eh looy mënal sa jabar oh oh, oh. benn euh, ñaareel ba ma ñëw ci jigéen ñoo ñu nga xamante ni yow yaa ngi leen di wax mbooja ñu ngi ci biir kër yi di ko muñaale muñ am parce que tout simplement xam nañ ni ay mbañu rus la xam nañ ne itam Euh, seeni boroom kër xëy na àndoon dañoo ak ñoom am na loo xamante ni ñoom duñ ko mën a. am na koo xam fesal mais ma may la benn affaire. waaw ah. gis nga ñii xam naa ni yéen ci ngeen bokk dinañ ma ne ak jigéen ñi dañuy dem ba tële. am na koo xam daa di xaritoog Facebook. mu ne nettaliw ma ko. may ma tuuti xaritoog Facebook xaritoog statut jubluwoo ca nag dara lu dul dugal loo xamante ni na ma gone yu ndaw yi di aimé. Ah. te dafa am yoo xamante ni ñàkk personnalité la ci góor te mi ngi ci góor ñi am pagaay caamas te ay amoo Facebook. non artiste laa nag war naa am am naa droit am Facebook. loo ciy def. barke Serigne Babacar Sy. lu gisuma ko bu la neexee nga dugg sama Facebook. photo yi may liggéey dong moo ci nekk. di xaar aimé. photo yi liggéey non photo li may liggéey des fois doo jooyal mbaxane mais yooyu xaw a kii noonu tiitaru mais am na koo xamante ne am na jigéen joo xam ne man wax naa man téléphone te kilifa la gu mag lan ta sax waaw nag mbayang waaw carrément waaw nee na man bi may bi ma sama borom kër takkee man sama wujj da doon ree mais ree ji xaw moon ree lu mu doon waaw parce que ko takkee ci big bi wa waaye yow yow mënoo bàyyi big bi yow <laughs> waaye big bi waaye bi waaye gis nga mais xale yi jigéen ñi nañuy ñeme diggi lal ba te booy di tëf lal ba takkee ni tam leer na sa big bi ndut xoolal ah ba toog ci kër ga di ree xam nga tuddati big bi mais bi ma ci biir néeg bi laa xam ne big bi bindut ak pourtant waa jaa ngi tey buumu ndaw si euh, léegi loolu mooy lan léegi nag jëlal big bi def ci biir saag bi te bu ngeen naan su yàqoo dañ ko dëxëñ fii ci biir saag bi nga toog muñ big ma toog muñ big bi looy génn dara saa ji dinaa la wax leen ah dañ waxante billaahi wal kitaabi Mbodj d' accord maak yow foofu de. Mhm. non non man d' maak foofu de xam nga tax d' maak mooy moom foofu dama wax dama la am lu ma la wax léegi léegi mhm, léegi. Mhm. nee naa la nangu fu mu amee ci sëy sëy ba avancé. dëgg la fu mu amee ci sëy sëy ba dem. jàppalante fu mu amee ci sëy sëy ba dem. sëy ba dem léeg-léeg. ñoom foog foog ñu d' accord leen. sunu borom moo d' accord ñu. waaw nan takk ñaar ba ñeent. dëgg la. billaahi waaw dafa xaaral ma ñëw. mais dafa tële bu jàppoon. waa ji dafa tële bu jàppoon ku ci nekk jàpp góor bu ne bu takkoon benn jigéen. Hmm. jigéen yi fi nekk yëpp kenn dootu leen takk. Hmm. ku ci nekk di nga ci am rakk wala mag wala yow sa wàllu bopp kenn du la takk. Hmm. sunu borom xam na li tax mu wax ñaar ba ñeent. kon sunu borom moo ñu gën xam sunu bopp. mais moo ñu wax it nuñ koy yoree. is yaa ngi dégg. ñu boole leen ñoom ñeent ñëpp téye leen. Euh, euh, euh, war leen dundal. war leen dëkkoo war leen a wodd. sutura amoon suñu biir. Mm-hmm. barke yonent bi da nga doon gis suñu mag ñi. Mm-hmm. dundu ay quatre-vingts ans. waaw te ba tey dañ ko doon man waaye Mbodj Mbodj xoolal léegi ñun lu ñuy lekk baaxul. waaw ceebu jën joo xamante ne day ànd ak xooxi mango. ba pare stress ba ma ma ma nga may may ma rek ma li ma libéré sama bopp. temps bi ne ay xooxi mango. waaw <laughs> Dakar joo xamante ne ay suukar lu ne nga ci biir lu ne nga sëlëb ko ci ceebu jën <laughs> da nga ko lekk di daj ay békku suukar di lekk di loo doo xam ban ceeb ngay lekk. loolu noonu ko mën a defee di wér nga jógee ci lekk loolu waaw ñu tegal la jus boo xamante ñu tegal la jus boo xamante ni nii na ma yàlla bal te jéggal ma mën nga dee def paanu ndox mu saf-saf nga ko nga toog di naan di ray muy ñaar nga dem ba tëdd ñu dem jël ay génne arsenal yi sol la ko sol la sol sol sol sol sol ba nga ni waa lii waaye yow fan ngay amee 40 ans sa dig di bind doo bàyyi dig bi fooy bindee fan ngay bindee. ca waaye waaye am nga àddina émission Mbagnick Mbagnick bu cooli cooli amul yoo la neex dégg équipe baa ngi nii. dama bàyyi loolu dama bàyyi loolu lu ñu lekk baaxatul. nor billahi li ñu lekk normal moo ngeen gaaw a fa tax ngeen di ngeen mépp mer gàtt saal ba tëj ñooyee tax ngeen di fanaan ci saal bi pour jegg ngeen xam pour ñu a mer di berju seen i bindut bindu yaa ngi dégg léegi nag pour ñu génn mer la xoolal nday faatu mi ne fii da nga soof da boobu big day bindatul comprendre nga pour ngeen comprendre seen jeeg ñuy wut ay amee rek yor téléphone bi suba ba ngoon jot biir kër cent góor ñi laa wax. waaw bind leen ah. <laughs> nit góor ñëpp di bind. nañuy bind nañuy bind. nañuy bind ñëpp. <laughs> man ku ci bëgg bind ku ne na ma contacter <laughs> euh, su ko defee ma boole laa ju ma nga Paris euh, sama tradipraticien boobu nga xamante ni tabarkalla macha allah faj na góor ñëpp ñu nekkoon France attaqué jëm Sénégal te it nag bagage yaa ngi fii ci Sénégal tabarkalla macha allah loolu moom dama ko ciy dugal rek may remercier bu baax a baax ki nga xamante ni moo jaar fii tey Aliou Tailleur la euh, ngeen am ko ci 17 75 77 937 17 75 moom mooy numéro mu nga foofu ci arrêt Chérif may jaajëfal bu baax a baax. roxoye bappuloo moo jaar moom tamit ci tisi bi sama doomi bopp jooju nga xamante ni ku ndeyam liggéey dëgg moo koy takk ngeen mën ko am moom tamit euh, jipir bu léger bi euh, ci 77 309 56 68 77 309 56 68 waa maison du foulard nekk fële ca boor yi ca Pikine maa ngi leen di remercier itam foulard yi yàgg na waaye saa yi ma ko génnee rek tabarkalla macha allah mu nice lool. Mbooje kontaan naa euh, wax dëgg yàlla indi nañu lu am solo waaye nag euh, góor ñi lu mu ci mënti doon rek nañuy sabab lu wax naa leen ne portable yi dañu wax ne néegu sëy dafa xat. temps bi jeex na tàkk waaye da euh, la lalu sëy dafa xat. mais parce que jëkkër ak jabar xajuñu ci. Ah. léegi nag jëkkër ak jabar la ak ñaari portable ku nekk ak sa portable. Ah. jabar fuuyu fële ci portable am jëkkër fuuyu fële ci portable naka laa lay cuqee mm-hmm. naka la sa big di bindee mm-hmm. parce que tout simplement temps bi waroon a passé ci yow maa ko passé ci sama portable du dëgg kon donc nañu delloo siwaat xel yi bu baax a jigéen ñi tamit bàyyi seen téléphone yu jëkkër yi ñuy piraat léegi romb nañ ah. léegi ci lii léegi dañuy pirate ko message def naa ko vidéo dina génn gis naa def naa ko pare maa ko teg dina léegi dañ koy peraat ku sa jëkkër message mu sotteeku ci yow nañ ko bàyyi parce que day perturber sëy góor kenn mënu ko fiire na ngeen def li ngeen mën ci seen borom kër yi toog tranquille te ànd ak dignité xale yi jigéen dañoo pare lu wat duñu far lu xaay ñu wit faale ñu saala yaay pare boo la wooyee naa la sama jëkkër yow la nekkaloon yaa bu ne maa ba mu neex. na la jëloon sa sa sa say tas beneen jeeg bu pare bu di ñëw toog zéro. nañ bàyyi seen téléphone borom kër yi ñuy jël di ko pirate. ànd ma ci ak ñoom fii koo fi ñu jël di la gis. sëy est-ce que sungu fëgg reen la wala fasak ki ki xaaj. sëy ñemee lan la te déggoo sa borom kër te lu mu laaj ko jox ko ko te ñemee poosam ñemee biiram di ko toggal lu neex di ko fóotal di ko paaseel bëggi mbokkam. tey dàkk digg lal tey dàkk digg lal bi di ko jox ba muy gal ah ah allahuma jannib ni <laughs> jannibu ma waaw kay mi ngi noonu ma bàyyi na mbayeg mooy samedi bii passé jaal baabu ndeysaan euh, mu doon nag euh, tarkal la moo doon am tey goro di sama euh, mag di sama xarit jàkkaarloo man kër mm. ki ma lu baax maa ngi koy ñaanal yàlla dëgg la goro moo la tere woon ñëw la moo ma mm. tere woon ñëw samedi bi passé xadi bal la politicien macha allah itam la woon takk tey mm. jaal baabu jàmbaar kontaan naa kenn ñi xaarul fekku kenn fekku la sax njaboot ku du yàlla ak yonent bi day jàmbaar di bàyyi moor mm. ñu ngi lay ñaanal yàlla moor soxnaam sos yàlla na sedd guy ci moom sa goro bi yàlla na la jik sedd guy ci yow kon jaar baabu maa ngi lay ziar di nuyu aji mbeen nag aji mbeen mi nga xam ne mooy doomu xadi balla mm. te a maye xaalis lool te bu lay may du xool day gëmbu buux ko ndànk maa ngi ko jaajëfal yàlla na yàlla lafal cat ay doomu xadi balla la war a seet tamit caamaas mi aaw buru këram wala ñaareel. man hmm. kan man. waaw aaw laa ma doon hmm. ko nag lool. Ndiol c'est facile barke bëgg ko lool nag. c'est facile waaye fit waa fi dul nekk. tàgg naa ko nag na gars yi caamaas maa ngi lay kontaane bu baax a baax. ñëw nga neex. tarkaal bi neex nag kontaan nañ sama góor sama xarit. yàlla na def jàmm macha allah yàlla nga yàlla may wér. amiin fan ci barke amiin xaw tuuti doo def émission tey de. <laughs> ñeewante ma la def lool dugg si beeg yooyu mais nag bon tabarkaal la macha allah li ma la wax sànq rek ci oto bi ma ne la damay gërëm sama patron bu baax a baax. li ma koy gërëmee mooy bu ma defaloon lu spécial dama leen naan lii la ma defal. man ku ne xam na ni man damay jaar ci digg ba. mais dama la wax ne la heure bi waroon naa fekk mu ne eh, je ne veux pas prendre de risque. qu'elle reste chez elle. je ne veux pas prendre de risque. sinon les fils les cable tout est câblé ici et s'il y a des problèmes Marème et Abdoul vont me dire que c'est toi jaaragu fa ak man mi ngi ma fi bàyyee ndi may liggéey la macha allah te nag mbooja laa àndal. léegi ma wàccee. moom moom dafa nekk fii di animé bëgg ma émission waaw man man émission dara laa ci bëggatu woon nii sant yàlla gaynde ngi yàlla na yàlla sant yàlla te may la wér nag wallaay barke Seydina Muhammad fan si toog ñoom a tax di ñëw di toog kon élage maa ngi koy gërëm ci kóllëre geek ngor googu fin de carrière ñi ko mën bariwuñu mhm. kon Ndiaye macha allah fa tabarakallahu te nag amee la gu salaire wax naa la bu ma defaloon lii dama naan leen lii la ma defal damay jaar ci digg ba di gërëm bu baax a baax gis naa niñ la taxawoo bi nga ma leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Arona Moussa Dia maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal toujours jàmm ñaanal ko ki nga xamante ni itam moom mooy euh, euh, Moustapha Diop sama waa ji yàlla na jàmmam yàgg lu waay soob lu ne ci man ci dëbb rek euh, ci moom nga ci fekk ci biir kon Arona ja Euh, maa ngi koy nuyu bu baax Moustapha Diop Euh, maa ngi leen di nuyu Mousli les amis de Harouna Dia euh, waa AMS association des anciens de Matar Seck nga xamante ni fa laa jàngee sama cycle secondaire kenn du ñoom ñoom Kiné Ndiaye ñoom Adama Keita ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen kontaanee di leen wax ne leen la ma leen waxoon defu leen ko Thiamas. waaw ma bàyyi la nga tàggoo tàggu sab kii sa sa madame comme Benno Bokk Yaakaar nga bokk. <laughs> Euh, soxna si dañuy santat yàlla bu baax. alhamdulilah dañuy santat yàlla bu baax. rapidement di Seydina Muhammad. ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla sunu daje bi yàlla bu doon suñu. macha allah macha allah di gërëm suma wayjuru góor mhm. sëriñ Babacar Sy yàlla na yàlla guddal fanam ci barke Seydina Muhammad sama wayjuru jigéen ñu mi génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ci barke Seydina Muhammad defal ko bépp mbooloo mu jullit amiin amiin euh, mbay di am mbégte bu baax di am kontante jërëjëf yàlla ñëwaat ci kër gi mais Mbodj Mbaye di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dafa jàmm mais mais mais Mbaye mm. coow li coow li mm. yow mii la ndeysaan giñal naa la ci sëriñ Babacar Sy yàlla na la yàlla defal jàmm amiin xam nga xam naa yàlla xam na yàlla na la yàlla defal jàmm. bu la ma jooyloo nag defal la sutura ci léegi dama gaaw a jooy yonent bi ndax <laughs> euh, li ne ci xef yi ndeysaan nekkul ci xol yi dëgg la li ne ci xol yi mm. lu jóge ci xol ci xol lay dellu dëgg la te yàlla na la yàlla sagal la yàlla sagal ci barke Seydina ndeysaan ndeysaan barke euh, la ndeysaan jërëjëf Grand Yoff ñaan yàlla Sénégal réew mi yàlla na fi yàlla saxal defal leen jàmm yéen itam ku ci wax jógal da jóg pour merci rek Seck la macha allah maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax nee naa leen coow li coow li relève baa ngi nii Mbodj Mbaye ak Thiamas bu ñu ma ko dirigé lee rek day jëm ci kanam. Mhm. kon donc mi ngi noonu euh, may gërëm ñëpp nag di sant ñëpp ni ma leen ko waxee di gërëm ma famille di ko jëkkee ci Momar Thiam taaw bi nga xamante ni du taawub si ngom te it nag nee naa ko alamaam yàlla aanu teree dee mooy docteur ci biir famille. jëmb caam démb defal ma loo xamante ni moom it yàlla na jàmmam yàgg ñoom faatu ñëpp yël seen doole rek. ne ma doo tumuranke doo jaaxle doo wéet moo ma tax a mel nii ma mel waaye jaajëf sama goro bi nga xamante ni ma ngi ca kër ga Mbaye Gueye maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rendez-vous ci kattanu borom bi samedi prochain lay doon Iran Ndaw yàlla na ko yàlla may wér na ko ñëpp defal ñaan comme ni ñu ko déggee rek euh, wér yombatul kenn ku ne am na looy soxaale kenn kontaanul kon Iran yàlla na ko yàlla may wér defal ko jàmm mu dellu siwaat ci liggéeyam euh, macha allah média métti na waaye nag sant yàlla bi nga xamante ni lañ cay def lu sunu borom gërëm la mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci kàttanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fi amanillah jaa ngeen jëf